bisimilah. waaw daa waaw. nee lan mooy tegginu koy defee. sikar nii ngeen doon def ci la bokk waaw nii wàllu yéen doon def ci la bokk ndax Cheikh Rafal mi tax gaa yi sikar ak sëñ Moustapha mi doon sikar rafaatale ko sëñ Cheikh Fall Baye Góor du mel ni mu bàyyi Baara Ndiaye ñoom Seydi Karim mujj ak yéen lii ak jibi juuf mi mujj dar sëñ Cheikh Fall ci Sam Fall ak ñi koy roy sëñ Cheikh de ku mas a sikkar bëtxal ca muy la noppel ku du yalla ku gëna mag yalla yàlla amul kon soo tuddee yàlla bu ci tek leneen boko massa tudd fi mom ba noppi muy ni ngeen ko waxe te raxu leen ci dara danaa danaa sàtt baaraam bi wala mu fab sotti bi joxoñ ne dem na jàkka debi sët lu dem jàkka bi sët nag kenn du ci tudd leneen lu demuti jàkka demuti sët parce que nit moom bu demee ci jàkka mbaa mu dem ciy sët daa julli ci ca jàkka ja bu demee ca buntu jàkka ja tëdd mënta yëngu daa faatu waaye ci sëg yi lañ ko jëmee sooy wax laa ilaha illallah kenn du la ne noppil diisu la ne baal Sëriñ Asan dane laake laakaa du tur laaxe laaxaa du tur La ilaha illallah amul kef amul khaf. Dan ni kuko wax fukki yona yar ni nii ngeen fa nga tàmbalee won nga yëg ci wat fa yàlla far say sim ci gëttu sawra yóbbu aljana loolu kon tuko te Cheikh Rafa ko li di am imbi yegg ci yalla am yalla doon wali yu gaawil soo ñaanee mam buñ la ñaanalee mam kuko def mënoo loolu na nga doon tuddee yalla da nga caarax adina waaye Sam Fall mënul ci duggal adina ndax da metti alphabet yi waaw Seydi Karim bu naan bu daa sikar tànk yi day nàcc dafa yoroon góomu robaale sëñ Moussa Fall ne ko déel wa ndéelu ndax nàcc nàcc bi dakk moo tax ku saam Fall di nga soox il faut nga ringéej waaw waaye fi nga ringéej di tàmbalee fi ba nga del si waat fi ñu simb si git yóbbu àjjana loolu koy def doo fo doo ko fayee bu ko forto bu ko fayiku ku dul yàlla amul seen pay kuy tudd laa ilaha illallah te wutoo ci ñu bonante mbaa mbaa mbaa mbaa àddina mbaa pouvoir ku dul yàlla amul sa pay loo xam ne juróom-ñaari baat nañu far sa géntub sa sa géntub sawara ñu yóbbu ko àjjana far say bàkkaar jaar ci mbedd yi dem àjjana su doo faatu yegg ci yàlla sans sans xalwatu yegg ci yàlla tey maccaat sa sa sa añu bëccëg loolu loolu ku ko fayee xamoo li mu doon teggi ni laa ilaha illaa fexe ba bu ngeen koy wax bu leen fa mbaa sax bala ngeen koo def bay dugg ci tànt bi di ko def nag kenn ku ne laaj xeta la jàpp ba sell waaw boo jàppee ba sell juróom-ñaari baatu laa ilaha illaa mu gëral si juróom-ñaari cër yi sawara ub sa juróom-ñaari bunti sa euh, juróom-ñaari cër mu gëral ko sa digal sawara ub bunti sawara doo dem sawara motax mag ñi dañ ko daa waajal door ko tuddu sharafal mi da daan waajal turu sëñ tuba turu la ilaa du ko waxtu andu tam ñap man cheikh ni ku julli ge mba julli wo ge di bay fal japp japp juróom ñaari ay fati mu japp ben ben def juróom ñaari baatu la ilaha illallah wala wala sa wala 14 fukk ak ñeent waxabu gaganoo sa loxol joor tëdd loo gis yalla loo gisut yàlla te tawat ju la rey du la du la yee waxuma la jeneen te boo fi woppee boo ci faatoo de àjjana jinne du la jàpp seytaane du la jàpp rab du la tiital këyaa fi mënalu la dara waliyu iñaan boobu tooju mënalu la dara soo jàppee njàppin moomu wax juróom fukki baati laa ilaha ak ñeent mu ub sa juróom-ñaari bunti sawara goreel si juróom-ñaari bunti goreel si juróom-ñaari cër ci sawara may la barke gudd fa moo tax mag ñi daal lañ daan waajal tëddin wi ak yeewin wi ko daa waajal waaw kon teggi ni laa ilaha illallah jàppal door a tudd yàlla booy tudd yàlla bu ci fa booy tudd yàlla bul tudd keneen kut yàlla booy tudd yàlla bul neexantal su baat bi naqaree ba nga defee ni daa naqari bu naqaree ci bindaafur yi déggit moom neex na yàlla moom ndax ku ko saa baat rek la bëgg ba fi ne géej géej subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allah akbar ne dar ni subhanallah wa bi amdihi ci suuf dal di fututu ni la hawla wala quwwata illa billah lu ko fete ni mu yobul ni baat bobu rek lay wax ba fi ne bo demé fu geej am nga taxaw ci tefas ga yor sa kurus waaw allah akbar defana ni seigne fallu job ju ñaari ñaari téméré juroom ñet fuk ak lan allah akbar waaw yu top boo ko waxee laa ilaha illallah wàcc per duus yi daanu su noppee am nga yool bu toll ni tongi géej gi kon laa ilaha illallah duus ko fayee ndax lu dox lu ne moo ko fa doxal lu baax lu ne moo ko fa baax aras it moom rek a fa ne leneen néew fa laa ilaha illallah muhammadu rasulullah loolu rek a ne aras leneen néew fa kon nan di waajal baatub laa ilaha illallah te bañ ko def folklore sëñ Tuubaa dafa woote ci njaareem ne ni ngeen di jàng xasida muy dëjjintu dajeentu noonu moom la ñu wax rajas kenn koy jàng moom rajas la ko tudde sëñ Tuubaa ne dajeentu su ngeen ko jàngeen noonu amul mbóorante kenn surxu surxu njàng ma su ngeen noppee faatoo la tee dugg àjjana kuy ruubee njàng maa ko waxtaan ak ko borox ay wax malaaka yi sëq ko borox ko sawara te duma ko sañ a bañ moo tax fu ñu jàngee xasida kenn du fa coow fu ñu tudde baatu laa ilaaha illallaah soo mënta joxe fitatul mbaa nga mi ngi ànd gaay yi ndax loo xay bu ñu ko def arasa course yi dañuy mi ngi garab yi jaayaanu ku mu fa fekk bu sa xol dee seet te am njul na ci yow war ngaa man a jaayu moo tax gars yi léeg-léeg ñu kànnañ ci biir sax nag ndax dëbb ewal kànnañ léegi ñu ne jaayu leen jaayu naa arasa jaayooti na waaye wax nañ dëkk bu ñu bu ñu la laa illa laa di am rek muy budde mbaayu waaw loo xay nag boo ci nekkee dem ci yàlla ku la jege dem ci yàlla ku la sopp dem ci yàlla ku la jox dem ci yàlla loolu ëpp naa foyee suñu Amadou Bamba Seck liggéeyal ba benn bis mu yónni ko ci Cheikh soxla ab junni mu ne ko ah, lu sëñ Abdourahmane wax mu ne ko junni la ma yónni de mais bu fi lu fekk nga dimbali ko ca Cheikh Fall ko hee hee doom man sëñ Bamba duma laaj lu ma amul daani ñaata la wax mu ni junni maa jox leen ko doom jox leen ko ba mu fukki yoon ak benn mu yëkkati fukki junni ak benn jox ko sëñ Bamba set ni teg mu ne ah doom fukki junni xanaa junni asakaam ñu ne ko waaw mu junni luy asakaam ñu ne ko téeméer ñu ko téeméer luy asakaam ñu ni ko fukk fukk luy asakaam mu ne benn dërëm mu ne fukki junni ak benn ak téeméer ak ak benn doom muy laa taxaw di ñu dërbu daanaka ñu ne ko faal ñaata la ko cent ah kon cent os leen ko sëñ Bamba doom mbaa doomam jooju. daal ne Amadou Bamba Seck dandu si sëñ Amadou Bamba Seck dandu ci Cheikh Rafal mu fab loxo li teg ci digg bopp bi sëñ Amadou Bamba Seck moo ma nettali mu ni ma keroog laa xam démb ji weesu ak ëllëg ji ma jëm xam ñaata doom laay am ci àddina ak ñaata soxna laay takk ak ñaata taalibe laa fiy bàyyi ak ay soppe yi ñaata lañu mën a toog fii ci àdduna dem àllaaxira wallu ne noppi dellusiwaat égalon àdduna ànd nañu ñoo sëñ Abdoulaye Mbaye moom sëñ Moxtaar Mbaye Kéré sëñ Abdoulaye am gali serif mu rendi juróom fukki ginaar seigne bi ni ki xamul lu man de xamul naaj tang na xamul gant fenk na fi mu tok ci kaw état tam boobu saaku si waa deux la xamul xamul lu ñak bu xasse jallok deur bi lepp di balbali jën yeeg lepp di dox day defe ne dara ñàkkut ci aduna fi na xamul lu ñak ñaar fukki ginaar juróom fukki ginaar yi buñ ko reddee suba serif bi yandu wuti wat leen te fi ba ñaarim ginaar gisu fi waaw ñoom ñu sëq ñaar fukki ak juróom dekki teg leen fële ñu kekk keek waaw sëñ bi woo leen lu ngeen jublu ci lii ñu bi dana ñibbi wala du te suba attan naa jot nga di wutiwaat leen ginaar te fii ba njaarib ginaar desu fi mu leen yéenee jeeri ginaar waaye yàlla du jeeri ginaar asamaan seet naar bi ne day far yendu ngir ngaan gone at gi waaw am benn waaye bu juróom fukki ginaar jële ko juum dib taalibeem xaw ma sëñ Mor Boy la xaw ma euh, sëñ Ibrahima Boy ca ca ca jum gett indi juróom fukki ginaar akum xar xarum pël-pël yu mag yu mag yooyu ñu ba mu ne xanaa lii man na añ ak reer ñu waaw ñu leen di ginaar def ko añ naar bi dikk tiim xar mi mii nañ ko afra ci ginnaaw suba sa la ñibbi bàyyi Amadou Seck waaw keroog doomam ji juddu di làmp Seck maa ko si kar ni ngeen def la def ma tak sama ndig la ilaha illallah ba ñu tudd ba nopi bay amadou sekk ngi tok bay mor njaay tomb del bay mor dang euh bay cerno euh bay mudu kan bay murtala bay malik tay bay cerno mbàkke daru minam suñ mbàkki juusi suñ mbàkki sall ñu ngi sukk suñ mor mbàkke doj bay tomb jàng ñeen fukki maraxib ak benn bay idris babu jàng ñeen fukki maraxib ak benn kat moko ñu jàng juróom ñaar fukki taysir ak fatum kat karimul badil baaxi ñu jàng ci 114 bay idris babu ni fatul karim badil baaxi ñaar fukki kamil ak lay ñaar fukki kamil ak mu tolok lif lam mim lay daan ni sàllaaw Sénégal dañoo soof bu ñuy jàng alxuraan ñëppay wax kenn du ne noppi leen bu ñuy xët mu ñaan noppi leen ñi ngi xët mu xët mu daa gën a for alxuraan ba ngay noppiloo ko xët moo mu mat bu ñu ko xët mul mu mat ba mu ñëwee ba léegi kenn dolliwu ci liif kenn wàññiwu ci liif bu ñuy xët mu ñuy déglu bu ñuy taree alxuraan gars yi capar caparee ka wax ñuy xët mu ñu ne noppi leen ñuy jàng xasida ñu ne leen bu ñu ko xët moo tey jii xët ko alxuraan moo gën a wóor suñ taa alaji malik tani ku dul sëñ tubaa ah, mas ngaa def yàlla loo di astafurlah ba mu def sëñ tubaa wala maa leen wax loolu am dégguma sëñ gi ndar lañu fanaan benn néeg sëñ tubaa ak alaaj malik benn néeg asamaan sëñ tubaa ni nit ci taaxoole tàllal ni kii kana ñu ko alaaj malik si mu ni aalim la abid la seet leen Sénégal ku fi aabil ak abid sëñ gi rëbb leen loolu ba xam di ko gisam de ku dul malik doo aalim doo abid am déggoo ma ku du alaaji Malick mi sëñ Tuubaa ne la aabid la doo aalim doo aabid ñooñu yàqante wuñu am déet yàqante oh, nga romb Taysir naan xatmu bi <laughs> te Taysir moom sëñ ma Sàmba daa wax ni fu bàkkaar am Taysir dafa newut fu demee sawara dañ faa jàngul Taysir lu jafe kenn mënu caa jot dañoo jàngul Taysir nawet bu cëñ bi gars yi dañoo jàngut tëysir am na ko ñu tëkk bëgg koo kort kort gi di ci néeg bi wur wur yi di ko wër sarafaale ni jàll ne ko xanaa xamoo tëysir mbaa nga xam taw futu mécanicien bi jàng xasida boo jàng xasida mucc ci yooyu am de mécanicien bi mooy taw futu waaw juróom ñaar fukki wàll yu yàqule la ñu wax ne ku ko jàng benn yoon mu yàqu mu defar ko suñ ko ni waxewuma noonu waxewuma noonu jurum ñaar fukki wali yu yàqule nga leen ci ben néeg romb leen wax bi jaay jibril la sey sali wa balaxa ni mabli xëri jaal ñu defaraat seen wali fam mu motax ma tax ngi bay ci fofu bu ñu ñaan luñ ci tuddu mu faj bukk no ngum ñi xay xay mo dar neew waaw dañuy wax lu gëmul am de gëm gi manki na kon mbaa sell gi way xol bu ñaan sera faal wax ni yeewi til di woyu ab xol bu ca ñaan ne mën na stocké yalla ci biir ba lu ja Cheikh Fall dani ak taalibe ak ngërëmul yàlla ko dani mukk kenn mënu ko ko Fall des di def mu boole daw ak fëgg ak jooy ak yuuxu léegi yegg fa nga jëm mbaa te boo dee wàcc sëñ Bàmba nag da ko tudd lu mu doonut ñu ne ko lu tax mu ne da ngeen koo tudd aw yoon yoonu sëñ Bàmba fu muy àkke ji man maa yoon yu sëñ Bàmbay dëkk bi ku ngeen fekku ci dëkk ba waaxuwut ku ngeen fekk ci yoon mu gàllankoore talfarang leen ko aw yoon doxoo ko tax jóg ku taxaw ba leen ko ñu ne ko noonu si def mu ne wutuk taalibe ak amuk taalibe léegi mu ko kenn mënu ko am ñu ne ko waaw ñu ne amee ba noppi nag moom ngërëmul yàlla ak taalibe gi wut muy jafe-jafe téye gën a jafe téye ga jafe-jafe mooy sàmm ko ba du yàqu moo gën a jafe ñu ne ko faal nooy def mu ne la nga waxaat ba falu da nga ko dul bàyyi ko doo fële ko ndax ku wax ba falu fakku fuyum, fàttali lafal beru foliku la nga jappat ba mug taalibe bu ko ba xoolal sawaral ak ndox luñ bok dara waye bu sawara bu ndox yagge ci kaw sawara day fay sawara ba nopi di lakke famu tok bay lakke nak mana fay sawara di lakke taalibe bu ko am sëb serigne te tëgal dëggal te sellal la sawara am bay lakke mën nga ko am bay lakke te sëñ bi du mën a lakke moom kon sëg taalibe boo koy boo koy wut doone kañ la fu ma jëm xiif naa mar naa fu may lekke fu may naane nu ma koy waxee doo seet sëñ bi fu muy dugal sa alal doo seet fu mu koy génnee doo seet jabaram ju baax ak doomam ju bon doo ko seet loo siin ci sëñ bi rek sëb nga koy def ba ci feppi suuf yi ba ci fépp suuf yi waaye taalibe bu duggé kër sëriñu bu sét soxna su baax su bon na yes lu ji bu seetee doom ju baax juma di na sét yes lu ji sëñ Saalum dal fi ngay gané fi ngay ñibbi bo ci xamé donga bu réew ak jabal ju réew ak surga bu réew ku la gëna a xamadi am déet soxna si lu mu la toñ nga dur wala nga xas wala nga saga wala nga wili pandé ko dangaa góoriwu toñ nga yalla lu upp lu la soxna si toñ te yalla wërul daal li am murit day gis koy wàcc waaye du wàccee lépp ci taalib sàmm taalib gi la kenn du la ñuul ba nga bax doo doon këriñ bay boy waaw ah, doo doonu jànj bañ lay tooyal doo doonu doj ba ñu togg togg lakk lakk nga ni këcc doo ko def waaw ah, da ngay ni wëttéen weexe ne mu dóom ku la laal weex koo laal mu weex ku la nappaaje bu noppee bu demee ngay yow ngay wëttéen rek yow moo xam moom ak jàggam doo mer doo gedd doo siis doo fayu ak tooñ waxuma la di tooñ doo laal sib doo laal araam sax ci jaamu yàlla nangoo liggéey raw gaa yi taxaw liggéey ëpp doole doo noggutoo bari njëriñ di jëriñu tuddoo tiitaru xam sikki nit ñi maandu ci ku yàlla bi li nga yéene ko jàmm ji nga yéene sa ku daa sàmmee loolu sa taalibe kenn du la lor kenn du ko yàq am déet ndax Serapha dana ne ci kaw ay defe ne yaa ngi ci kaw ay yaa ngi ci kaw rek mooy koo dajal defe ne yaa ko daan yetti jaan mo nekk ci yoon wi waxe ay ndog lañu ji jaan da ngay togn yalla moy bu la maté bo lu gem wacc solo duggul mu wàcc da ngay togn yalla soko tuubale tuubalee duutoo ko def mu jéggal jenn ji say bokk da lay bayyi la ngay wuti soko amé alal wala nga am ngërëmul yàlla say bokk jappat la ay la yoon mo fi sës xewuma la ci jenn ji da ngay yak sa morom talib ci dara diko ko ka fangal la mu war am bu la xasse wokk jeena kenn mënu ko fajj fo dem dañ lay wokk kon dañuy moyonte ci suñu biir sàmmante ci suñu bopp dimbalante ci suñu biir aarante ci suñu bopp di rafetalante ginnaaw tey dimbalante te gëm sa bi ko de teg ko fu ko kenn tegul gëm ko nu ko kenn gëmewul di ko jox lu joxul kenn nag lu nu dàq ko Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa lu nu dàq ci moom lu lu nu jëmewut Sëñ Tuubaa nu làkk dëtuwaat Sëñ Tuubaa ndax ku dul Sëñ Tuubaa amoo njëriñ dégg nga wax bi sëñ Mbay taalibe gaa ngoog nan ko sàmmee noonu ba xam kennal gi gaa yi wax fi ne nan doy mag ñi Cheikh Rafal mi kenn leen Sëñ Tuubaa ku mel ni moom am de Cheikh Sadio mi kenn leen Sëñ Tuubaa ku fi mel ni moom sëñ Baylo mii ci kees mi kenn leen Cheikh Rafal mel ni moom am de eh, maam Thierno ku mel ni moom sëñ ma Sàmba koo gis mu mel ni moom borom gaawaan ku ko dab sëñ ma nubbe ku ko dab suñ Balla Coro Cheikh Coro ku ko dab sëñ Afe ku ko dab moom mi doon jiiti Sëñ Tuubaa julli kenn leen Sëñ Tuubaa rek leen ko yóbbi man ca noo jànga dàqa jàng ñi fi jàng waaw jàng kay ñoo juum naa bàmbaa ko ne baa bani ko baal néewu ko baal waaw sëñ Tuubaa dañ lu yàlla xam-xamal na ma te lu ma xam-xamal naa ko Cerno kon njàngum yàlla amut sóorutu am déet kenn mësta dégg mu wax sëñ tuwaa di wax aaya aaya ku tedd ki aji màgg jeeg ku baax ki loolu rek la daan wax boo ne sëñ Tuubaa ne mu ne tokk jub taxaw bu laajee ma joxe bu santaanee ma def su yónnee ma daw te Cerno raw gaa yi moo fi gën ay bokk am de kennal seigne touba ngok nun ñi sétal ko suñu ñi tok rek nun ñi tok kep ku ci kennal seigne touba te wax deug rew mu nakar mi gaay jambar yow yoboko am bay am salu dedet andik ah, kafe kafe nan kafe mew murok to ani ci jën buñu rof da ci sa ginar atay digg bëcc kafe takutan reer bari jaxan seblan want lu di upp jong may daakar daakar rek a waakar waakar kenn doo jàpp ku la dóor nga ne réew mi naqare lu mu naqare xanaa da nga bëgg a def àjjana si déewoo nag am déet réew mi naqare wut noonu noonu naqare leenu yàlla sant leen defut yàlla mu téye yowam rek waaye ku ci wax dëgg kennal sëñ Tuubaa gëm ko wóolu ko yaakaar ko te yóbbu addiyee ndax mu bu yóbbu addiyee nag moom mu ngi ne portable bu amul kër gi amul mel ni Baay Faal bu du doggi ndogu du yóbbu addiyee suñ ko xamna limay laxal da laxat ci làqatiku du làqatiku ndog yu mom ku ci mënta dem do tagu ko ndog bay mbay ak lan ki dañuy digënté mam Cheikh mam Cheikh ibrahim Fall ak njabotu serigne bi nan la mam Cheikh ibrahim Fall meloon ak ñoom gu serigne touba gi wa ñu meloon ak njabotu serigne touba amna bi serigne touba da leen wo moog serigne fallu ñu ci kess gi ci mu ñu indi benn keul bu ñu def cerey tëkk tëkkal satala gi am lay dur lañ ci def ak xasum reub reub togg ko ba mu ñor nga xey sama classe gi laal ko seen baram laal ci seen lamme kep ñi wuñ ko def ndax manam ndax sunu bakkan bi nu mom mom suñ tuwaa tek ci baram yi macc ni bismillah fal fallu yóbbul fi sa baye rafal ngeen bokk fekk da ko jikko won ko yóbbu rafal ñu nu bokk mun ko yalla téré am jaam nu muy bokk ak sa ngam toog bi seigne tuwaa nopi ni fallu seigne fallu fabal ndab li nga dem bokk ak sa baye si rafal bi mu ñewé moy waral won ko ginaaw ne ko numay baña bokki seigne bamba di bokk ak yow te li ci kaas bu sude deug li ci capteur bu nak yaay seigne bamba ne waral suñ fallu laal ci la muy laal wat jox ko ci rafal mu ko fuuf ras ko yetti won layal ni ko nan depp ke lebi ci bop bi bomb ko bamu fendi mu dor ko taaj seigne tuwa ko fawal fop ke lebi far doomi seigne tuwaay mom difulon am nawle ni nu mel nga xay tuwa seigne sëñ da lan wax wala seigne laatu ñu ni lu wax nangam waaw am deet cheikh sidi mota lutax tax wax nangam ñen ñi bi sëñ mun taxaa toogee jël tax sëñ mun di wax nangam wala wax nangam ku sa bàyyi jagul jagoo ngay fuñ la dagalé ngay sét wax ñu jubag jubul am sét leen ko gañ waaw mbolem ko dégg muy kaas ca doomi sëñ tuwaay ba sëñ mun ko dégg muy kaas na wut wala def nangam war naa def nangam bayam jagut ndayam jagut moom ci bopam jagut muy fumu wut fumu mu jagee du lu mu joyanti du ba ñëwoon ndax ku jooy mënoo joyanti ku taxaw do doxal kenn ku yàqu mënoo defar ku gaare doo tax kenn dox waaw moo tax suñ Muntaxa bi nan ñaan mu yàgg fi ndax delloo si na yëf yi fa mu neen xasida yi boy na foo waay neex jànge ko ku la sabooti moom sabatuwul te ku fexe ba borom jamono bëgg ci yow ku la ŋàññeti moo xam am déet suñ tuwaa ku yàlla gërëm ku la xas moo xam ku yàlla xarab ku la mën a gërëm du la jariñ dara xasida ku ci jàpp sëñ Tuubaa gërëm la Rasulaay gërëm la yàlla gërëm la sëñ Muntaxaa mi gërëm la ndax li mu ciy jàngalu ca mag ñi lañ ko gëj a gis ca sëñ Tuubaa ba lañ daan def te moom mooy sapeur pompier lislaam moom sëñ Muntaxaa waaw fu mu fu jàmm amul rek dafaa demul mbaa yónnee fa mbaa xel mu ne xel ma neewu fa yaram waaw fa xel mi ne yaram jàmm dugg fa ku mu jublu jàmm nga am ko ku ko jublu am jàmm te réew mu nekk yii ma la wax du fi am bekkoor nawet bu manqué rafle yàqoog dee dem dem sawara te ci mbedd yi ba alku du am moo yor mbég mi nasir wa basir wa nasiran moo ko yor mooy sëñ Tuubaa doole ci mooy sëñ Basiru moo yor may boppam waaw koo xëy boo koy tudd il faut say bëñ du laale mun tax xaa ngay wax da ngay xàqtaay kooku daa mat fab te fonk ko waaw salaamaaleykum. Hmm? waaw lii de xam naa ko soxna yee ko laaj waaw laaj ne baatu yaay Fall. waaw. cosaanam daal cosaanu baatu yaay Fall moom jëlewuñu ko fii ci murit gi. Hmm? xam nga dañ ni muudu muudu. tukki kadi mudu modi yi mooy ñiy tukki ñom ñu formé fofa nun tam yaay muudu muudu yi ñu demor modal ne ko ne yaay faal bu ñe kon ci ku dënk ci su bàyyi faal amé yaay ku faal yaay bàyyi faal war na am ya ne yaay faal yaay faal ñene yi te bàyyam Baye Fall moo original Baye Fall yi murid yëpp dañoo denc seen alal ci seen gaal ak seen i magasin ak seen coffre-fort bu ñëwee liggéey leen liggéey bi wala bale leen dëkk wala sëkk leen kàmb yi wala indi leen li nga yor te toog Baye Fall yi fàkku waaye kenn du yab yoon wi te ñu ne fi nag lenn sax fi mu ne ñu ñeme nañ ko ndax Baye Fall yi dañoo bàyyi nañu ndefoon dem moom di maslaa mbeddi Touba yaa ngee bu tilimee rek Baye Fall yi acca kër sëñ Touba yaa moom sëñ Asan mos ta tëgale mool bu mu tëddal boppam bi mu noppee ci kër gu mag miirub sëñ Abdu Lahat bi mu ko sëñ Saliou doon defar loo njaareem bi suñ sëñ Muntaxa toog moom lañ ko jëkkee liggéeyloo kenn xamul lu milliards yi toll benn poto làmp nga def ci juróomi saako ciment ak seen fer ak seen béton benn poto benn poto miir juróomi saako ciment ak ak fer ba ak béton ba te yow mosoo tëgale mool te yàqu ci fekk sa ndogu dara muy ay milliard te gaay ku neen étage defi milliard denc ay auto daa bi ñaari sax mën nañ ko waaw kenn ki day dama bëggoon xam dara ci Cheikh Galo ah, Cheikh Galo secrétaire euh, sama luma bëgg wax nit ñi ci yàlla te sawla mënu ko tudd wala romb na seeni nopp yeen la ci wax ngeen wax ko bo dee ci terib seigne mourad Laay ba mu yeesal la seigne mourad Mourab Laay Fall ba waxtanu ba Cheikh Tall won ci bari ba dee bés sàngam Cheikh Rafal nee ma mané gaay nangam bis sàngam Cheikh Rafal nee mané gaay dangam koku digam ak Cheikh Rafal lu sori la lu guddu la waaw ñoñu lañu doon mom ñoko xam lan ca sañ a xam mooy roy leen ci bëgg ak pëstéef ak sellal ak bëgg sa mbokk ak bëgg sa morom taalibi ak rafetal sa digganteeg bokki taalibi yi te nangoo jaamu yàlla loolu rek mooy wax ji yàlla yàlla dool dolli seen jàmm dolli suñu jàmm yokk suñu xéewal te dool dolli suñ muntaxaa eh, kartan ak barkeeg wërsëg weeg lépp lu mu bëgg sima lu ma ngi siman ba koog moom yàlla na ko yeggale ci kaw tal ak fekkee te nu fekke ko te bañ koo wuute yàlla suñ bi suñu ngërëm yi yàlla ci barke suñ baara barke suñ muntaxa eh, barke suñ sariwu gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu jërëjëf Baye Cheikh